en tant que policier en tant que mbër euh, nu ngay les deux du la yàqal dara ci côté fonction bi wala. waaw moo gis chaque jour ngi may dem ci réseaux sociaux di tooñante gars yi di cafetéria loolu mooy sama rôle rôle boobu la ma police sant boo gisee sax man dañ maa bërgël dañ ma jàppee benn. <laughs> élément libre noonu. may gërëm aussi suñu autorité yëpp ah muy DG ses adjoints ak collaborateurs yi nekk police yëpp. mooy les principaux directeurs yi nekk ci département police yëpp ma dugg rek am soxla dañ ma koy yombalal parce que ñoom nee man maa seen porte drapeau loolu nag yan bu diis la xam yombul nag maa ngi wax gars nañ ma gën a ñaanal projet gën a man ñaanal aussi yéen seen déplacement ma leen di remercier di wax ni population bi nañ gën a góorgóorlu ci

ak ñoom euh, guy gi temps yi gis naa ñu doon def benn affaire mooy ñi ngi wax président di ko interpellé parce que effectivement te boo xoolee làmb ji bu dee mbër mu fës métier am fës man la mais à part man mi sama métier fës boo xoolee yeneen gars yi yëpp seen métier euh, amuñu métier làmb lañ yaakaar kon tey jii nii luñ bëgg mooy fexe ba ñooñu am si luñ jàpp parce que bu ñu nee làmb ju bëre du am dara du am day métti si ñëpp kon nañ fexe ba ñëpp ñëw ñu fexe nu ñuy bëre waatee xale yi bëre parce que dañoo ay njaboot njaboot moo nekk seen ginnaaw lamb lañ yaakaar parce que ñoom ñëpp ko jël danaan dama bëgg teral sama waajur sama yaay kon président ñu ngi lay lancé appel yaa ngi ministre Matar Ba ak yéen ñi yor sport bi ngeen xool nu ngeen uti solution pour xale yi parce que aussi toog un an liggéeyoo métti na vraiment man mi di wax yow dama nekk policier moo tax mais bu woon mbër kese laa dina gën a métti si man kon ñi ngi lancé appel ñëpp na si ñëpp jàpp waaw voilà muy Big Pato ñu koy sant di ko gërëm ci li nga liggéey non seulement euh, ci wàllu li nga xam ne mooy euh, corps compagnie policière mais tamit euh, ci côté li nga xam ne mooy suñu cosaan di béré bi kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la jox waaw li ñu wax rek lamb suñu san ma lambaye nga lambay biram ndumbee nga jëmbul maa jara bak maa jara kañ maa di bërëm mbuur police gendarmerie sapeur pompier ba di administration maa seen su ma jiitoo ñu topp parce que man sama doolee sama xarit su ma jàqee ba lambuga sama xel dal <laughs>